nga da ngeen tàmm ni fu ñu ko gis rek Sonko ci ginnaawam boo moytul mi ngi sama ginnaaw de à suivre à suivre voilà euh, mënoon naa taxaw fee wax nag mais bu ngeen gisee ma ñëw fii parce que dama yor kayit te dama bëgg li may wax ñu déglu ma bu baax bu baax a baax a baax dama bëgg nag bala may commencé bi ma nuyoo ñëpp ci seen tur ak seen sant ma bëgg ñu jóg def une minute de silence ñoo xam ne ñëpp ñàkk nañ seen bakkan ndax projet bi egsi bi tey merci voilà loolu loolu loolu diine la léegi nag dañuy def jamono jamono bi mooy dama bëggaat ñu dëggaat def une minute boo xam ni dañu def standing ovation au président Bassirou Diomaye Faye ci discours am ba mu def États-Unis na ñàpp dëkk ci discours am ba mu def États-Unis na ko ñëpp félicité ci discours am ba mu def États-Unis delloo nit ku ñuul dërëm jaajëf merci merci prési prési prési jaajëf merci merci merci merci jërëjëf gars yi lii mooy wane ni ñoom fu ñu dem rek tas ko ndax ñëpp xam nañ ñu tas na États-Unis voilà damay rafetlu jataay bi di sant ñi ko organiser yëpp euh, ci lancement film bi ñu bugg a def ci parcours ci parcours euh, Pastef man nag dañ ma boole ci parrain yi loolu mooy tax may wax ci Pastef mais man kenn xamee mooy wax li ma mënoon wax sax ci ba may syndicaliste léegi ñàkk naa ko ndax booy jiite protocole dañ naan protocole moom comme bàmmeel day noppi rek day gis ak dégg ak waaye day noppi rek loolu moo taxoon ma dem ba daanaka perte naa habitude wax mais bisu tey bi nag dafa jar wax ndax tey moom dañu war a wane bi ñu sosee Pastef ba léegi ci première G bi li fi xew te jàpp naa ni ah man de foog naa ni lu bëri fekkee naa ko ndax man xawma ma la xawma mbiru yàlla la mais yàlla dafa def jour bi ñu créé Pastef muy le 4 janvier jour boobu dafa tombeek sama anniversaire muy le 4 janvier kon man ak Pastef yàllaa ñu boole kon loolu man dama am lu ma lié ak Pastef ndax boo bàyyee sa anniversaire dem di créer ay parti kon loolu lu yàlla dogal la kon tey mënuma bañ a wax mais nag man ci ñaari point rek laay wax benn bi ci Ousmane Sonko laa koy jëmale ak ay nitam li tax ma wax loolu mooy Ousmane Sonko toog fii di wax jàmbaar la yàq say wax la ndax ñëpp xam nañ jàmbaar la waaye nag jàmbaar bu àndul ak ay jàmbaar bu yàggee jàmbaaram wàññeeku te usmaan Sonko bi projet bi taxawee dafa ay jàmbaar yu ko wër te jàmbaar yooyu tey ñu ngi fii muy yéen ñi ñëpp mais jataay mais jataay bu amee mënuñu ci bañ a sippi ñenn tudd leen du nag dañu xeeb ñëpp mais comme mënuñu tudd ñëpp am na ñoo xam ni mënuñu leen bañ a tudd dañuy njëkkee ci ku mel ni président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nga xam ni ñëpp xam nañ jàmbaaram xam loyautéem xam teeyam xam yaroom xam manduteem kooku ku jara sargal la mais li ci gën a ëpp solo mooy nit ñi dañ doon wax naan mais Diomaye de moom ñun bu ñuy def tournée campagne moom mi ngi dakaar bu nekkul loon Dakar musiba am de mooy lijjanti kayit yi mooy lijjanti xaalis bi man damay toog yaag rek tonton ji bi fu ngeen nekk ma ne ko ñu nga Bakel ñu nga maatam mu ne envoyé naa mooy yónnee xaalis bi de kon kooku bokk na ci ñi ànd ak Ousmane Sonko bu ma jógee ci Basirou dama ciy tudd Biram Souley Diop ndax Biram Souley dafa bokk ci membre fondateur yi Biram Souley ñëpp xam nañ li mu daj man de fi ma doon liggéey ak fi mu doon liggéey ñoo jàkkaarloo woon mu nekk fa chef de service mais dama dem ba mu jigi dama rus dama rus dem di seet di seeti Biram Souley parce que benn pukus bu ndaw lañ ko jox ndax di ko xeex Birame Souleye dañ koo xeex a xeex a xeex ba njabootam bokk ci xeex bi ndax dégg ngeen histoire am bi jabar ji am ndax histoire yi mu jàpp rek kon kooku dafa bokk ci jàmbaar yi Babacar njaay GPS parce que foog naa ni ñëpp xam nañ ko Babacar Ndiaye yàlla nattu na ko bi taawam di judd sax ci kaso bi la ko fekk ndax projet rek kon kooku jàmbaar fàq tëdd la munu ma nag bañ a tudd sama benn xarit muy Abbas Fall parce que Abbas Abbas dem na ba lépp lu mu yore woon yàq nañ ko ndax Abbas dafa yoroon ay école ay école laa wax di dimbali doomu aadama yi ñuy liggéey di jàng ñii di liggéey ñii di jàng gratuitement ay ati ati ati at ñoo xam ni 30 pour cent école bi ay étudiants duñu fay dara tey état bi xëy takkal ko pot ay affaire njublaŋ ba yàq école am loolu Abbas dund na ko fi da da damaa fekkee nag moo tax may wax te li ma wax kenn du ko dindi ndax bi mujj bi sax mooy ki ngeen doon tudd sànq naan kan Mbappé Mbappé sax Mbappé sax jël na fi gaal sol caay di dem Mali rek pour bañ rek projet bi yàqu ma teg ci nag sama yeneen ñaari xarit muy Waly Bodian ak El Malick les les bracelets ñooñu nga xam ni ñooñu nga xam ni Ismaïla Madior dafa dem defar ay bracelet takkal leen ko foog naa ne ku fi xam bracelet rek El Malick tax nga xam bracelet ak Waly Diouf Badian amit koo xam ni ñëpp a jóg sam ko doomu diine nga waroo politique bàyyil ki nga topp kii joolaa la kii defal lii kii defal lii mu jàpp rek ne Mbàkke laa sant waaye fu kor yi tëdd ma tëdd fa muy Cheikh Coro Mbàkke loolu moom pon naa ni réerul kenn gars te te te ma te ma yem fii boog waaye nag bu ma fi yemee day ñaaw ndax kenn déggul ma tudd jigéen te nag jigéen ñaa ngi fi de nekkoon ci affaire bi ndax ma madame la présidente ngi nii de moom de am na loo xam ni ma ko waxee ci salle bi moom kese moo ko xam ana madame la ministre madame la ministre madame la ministre épiligné épiligné épiligné madame la ministre rek moo fi xam fii lan mooy épiligné xanaa joolaay ndax joolaay xam nañ ni épiligné mooy fas li waral épiligné nga nag mënuñu koo cee bañ a wax ndax bi ñuy sos parti bi foog naa ni bu ñu matee juróom-ñeent bu ñu daan réunion dañuy xaarante ne nañ xaar administrateur yi maanaam ñiy liggéey ñoom Birame Souleye ñoom Diomaye ñu wàcc 6 heures ñu soog a mën a réunion ba 6 heures et demi 7 heures gars yi ne ci embouteillage yàlla dogal nag ma amoon benn xant audi quoi bu ñu ñëwee ba pare réunion rek ma jël ko ñu sori dëkk géejaay yëpp maa leen di yàpp benn bis président Ousmane taxaw quoi mu ne mais may mun a kii épiligne la yore bul dugg ci épiligne bi ndekete épiligne mooy fas oto boobu la Ousmane Sonko tuddee woon épiligne ba yàlla def oto bi daa xëy bëccëgu ndara kaa mu lakk ba jeex tàkk te foog naa ni parti bi moo ko waraloon mais du may mun a rek mooy fii jigéen de ndax ku wax may mun a wax mbenn wax Fatima wax Sina vraiment foog naa ni ñooñu bokk nañ ci ay jàmbaaru fëkk tëdd kon loolu mooy ñi nga xam ni ku ci déggu sa tur nag nag ma jéggal mais dañu ko ñoo xam ne mënuñu leen woon bañ a seppi tudd leen ndax ñëpp xam nañ seen jàmbaar te dañoo yàgg wër Ousmane Sonko. ki leen jiite nag ku ngeen wax kan kan Guy Marius xam nga Guy Marius moom Guy maris moom moom moom moom dafa spécial Guy Marius moom xam nga yéen Guy Marius ngeen wax man guy bëris laa wax ndax du daanu mukk du sonn du màgget du maxe du tappale foo ko fekk mi ngi ne xaj taaw rek kooku moom guy maris sagna la moom kooku moom digg yi sans nag ma ne ma ne nañ leen déglante ma ne am na fi ñoo xam ni am na fi ñoo xam ni ay membre fondateur lañ te tudduma leen buñ buggee lim ñëpp duñ fi jóg ndax dafa am ñeen ñu war a wax te ñëpp xam nañ ñi ñu mujjee ñëw am na ñu leen jiitu te tudd ma leen mais nañu xam ni kenn ku ñu tudd rek ku ñu tudd sa morom yow lañ tudd ndax Ibrahima Thiam mi ngi nii toog tudd naa jeunesse yi Cheikh Bara Ndiaye ngi nii toog tudd naa jeunesse ñoom nay leer a ngi nii toog tudd naa jeunesse bi kon bu ma tuddee ñenn ñi rek ñu xam ni ñëpp laa ko tudd bu ngeen fi bëgg a topp di ma limal ay nit duñ fi jóg nañ leen avancé noonu te dama bëgg a ñëw nag dama bëgg ñëw ci ki nga xam ni moo njabote ñëw ñëpp muy Ousmane Sonko parce que dama ne leen ku ko jege woon la ba léegi sax xaw naa ko jege parce que léegi dafa ma xaw a soril ne ma comme léegi état la mun a tooy yore protocole bi waaye dénk naa la cabinet bi te foofu naa ni foofu famille bi ngay gérer rek politique beeg euh, were mese yi Ousmane ku jullite ku gëm yàlla ku maandu ku bëgg njabootam ku am diine ku doylu ku bëgg nitam ku mën nitam ku xam nitam kooku mooy Ousmane Sonko pour ma tëj ci Ousmane Sonko ñenn ñi sax dañ naan ma mais yow tonton ji bi nan nga mën a nekk ak Ousmane Sonko pendant dix ans kii nooy def ak moom ndax ñëpp xam nañ ni ni mu mel mais ma leen di wax ne billaay Ousmane nitu kersa kese la Ousmane nag ku bëgg a moom comme ni ma nekk moom dafa am yoo xam ne Ousmane jikko woowu ko boo ko deful rek ngeen juboo Ousmane buggul ku koy nettali usmaan buggul nga ñëw toog di jëw nit Ousmane buggul ki mu seqal nga ciy jéem a dugg parce que ñi ko war ñëpp ku ne mi ngi seq yow loo xam ne seq ko keneen di sant loo xam ne seq ko keneen te ñëpp da leen dajaloo di ko coordonné kooku mooy Ousmane Sonko te foog naa ni ñi ma wër ñëpp xam nañ la mi ngi bëgg a gudd mais il faut ma tëj mais damay tëj mais bala may tëj nag man damaa am sama njabootu bopp nag man Jibi Gueye Ndiaye xam ngeen ñan la man sécurité ak chauffeur ñooy sama njaboot man ñooñu ñoom dama leen di sargal spécial ndax fu ñu dem bu ñu lekkul du ma lekk bu ñu amul fu ñu tëdd mën duma tëdd boobu ba léegi nag bàyyiwuñu dawuñu toxuñu lu ne daj nañ ko amul ci ñoom ku ci demul ci kaso bi mais tey lañ gën a bàyyi kon yéen dama leen di lancer appel lépp lu ngeen mën ci ñoom def leen ko te yàlla tax ndax mérité nañ ko loolu moom maa leen ko dénk kon pour tëj wax ci ci ñaari point laa koy tëjee benn bi mooy sacrifice démb ñëpp dégg nañ euh, Ahmed ministre secrétaire général du gouvernement di wax ni daanaka ñi fi jógee liñ fi bàyyi bu ñu ko calculé woon tey ñun ku ci nekk war nga fay neuf cent mille déglu leen rek déglu leen rek déglu déglu leen rek déglu leen la li may wax dafa am solo li ñuy wax déglu leen rek xam nga ñun ñii maanaam ma ne ñun ñii amel nañ état bi ku nekk neuf cent mille loolu mooy wax ci mais yàlla dafa def ñun ñu ko fay parce que tey ñiy jiite mooy ñi ñu yor kon tey ñun li ñu war mooy sacrifice mooy xeex mooy liggéey takk ndigg yi di xëy heure di wàcc heure di bàyyi yëfi jàmbur di jàppalante di bañ a buuxante di bañ a siisante ku ci mën dimbali sama dimbali ko loolu la ñu mën a liggéey ba tey bor boobu wàññeeku te duñ ci dugal suñu loxo. sacrifice boobu nag fi mu koy tëralee mooy fi ñu jëm mooy élection législative tey Sénégal gi ku bokk Pastef rek ba ngaa nekk député dëgg loolu du dëgg ku nekk Pastef rek tey jàpp nga ni war ngaa doon député. am na ci département yoo xam ne du ma mais am na ci département yoo xam ne ay quatre-vingts candidats quatre-vingts yenn département yi cent dix candidats yenn département yi dix-sept candidats xam naa ni li nekk ci député war naa neex de ah Abbas ah doy na waa de li nekk ci député war naa neex de parce que ku jóg rek na député man de dama jàpp ni bu fekkee ni Pastef dafa am lu mu tëral ñu xam ne tey kenn du am ñaari ndombo am yàlla def ñoo xam ne nekk nañ ay ministre ñenn ñi yàlla def tey ñu nekk ay ay ay directeur directeur général ñaan ñenn ñi yàlla def tey ñu doon ay ay PCA bu ëllëgee nomination yaa ngi ñëw bu ñu jógee ci député yi maire yaa ngi ñëw président conseil département man damay jàpp ni saa yu affaire député bi warul tax kenn yenu ko ba mu jaral la lu nekk nañ leen jàppalante xam ni ñu ni nen la ku fi toog nag ba dimanche liste génn nga ne gisuma sama tur damay mer damay gedd dama ne ñun romb nañ foofu dañoo toll ci defar réew mi dañoo toll ci defar réew mi bi ñuy bi ñuy fal ministre yi kenn déggul coow bi ñuy fal directeur général yi kenn déggul coow bi ñuy fal PCA yi kenn déggul coow te yàlla def na fal yi quatre vingt pour cent yëpp jaar na yoon kon dama ne tey ñun ñëpp nañ jël lépp